alterner les deux rek parce que askan bi laa bëgg ñu waxtaanal tey euh, dégg naa trois questions yi ñu ko posé xam naa question sur accord de partenariat économique yi dama ciy tontu tontu bu gaaw parce que dafa am beneen téere boo xam ne ci accord de partenariat économique la te ci deuxième panel bi lay ñëw donc ma concentré wu ci ñaari question yu jëkk yi bu jëkk bi dañ ne l'Afrique et le droit à la différence ma leeral ne téere bi dañu ko bind ci lii ñuy woowee organisation mondial du commerce organisation mondiale du commerce mooy organisation bi nga xam ne fa la réewu àdduna yépp di daje pour wax mbirum jënd ak jaay maanaam commerce international nan lañ koy doxalee ci àdduna Sénégal day jaay gerte France di jaay leneen États-Unis di jaay leneen ñu ne nag pour que jaay ak jënd boobu mën a dox il faut ñu daje ci benn organisation xool na lañ koy doxalee organisation boobu ñu ngi ko créé bi deuxième guerre mondiale jeexee 1947 ci la dëkk yi ne ñun ñu ngi topp di xeex suñu biir alors que ñu ngi xeex nekk ay ennemis alors que war nañoo mën a jaayante ak jënd suñu biir ba nga xam ne guerre dootu fi am ci lañu créer organisation bi mais li nga ciy jàpp mooy ba ñuy créé organisation bi amul benn pays africain boo xam ne existé na parce que ñu ngi 1947 donc ñun ñii Sénégal à l'époque ay français la ñu woon français yi signé ci suñu tur bi ñu demee ba ñu am suñu indépendance la nga xam ne moom la ñu tubaab bi signé loon ñun renégocié wuñu dañu tàmm comme ni ñu tàmm def rek dañu ñëw rek continuer ba ñu demee ba 1996 ñu ne nag njaay ak jënd ci àdduna bi ni muy doxee dañu ko war a changer pour dëkk yi nga xam ne ñoo mujjee juddu muy pays africain yi te Sénégal bokk ci nan la ñuy fexee ba ñoom ñu gis ci suñu bopp ñu négocier ko pendant huit ans signé li ñuy woowee les accords de Marrakech mooy organisation mondiale du commerce ñu créé que le 1er janvier 1995 waaye foofu li ci kéemaane mooy huit ans yooyu ñuy def négociation dëkk bu nekk joge nga ci àdduna ñëw ne man lii laa bëgg lii laay bañ lii dinaa ko signe lii duma ko signé waaye amul benn pays africain entre 1986 ak 1994 bu ñëw ne mankat njaay mi ak njënd mi ci àdduna bi nii laa ko gisee comme si ñun bokkuñu ci commerce international comme si ñun suñu dirigeant comprendre ñu pendant huit ans liggéey bi bu ma koy def def naa ci ay at benn dëkk rek laa gis mu bind ci benn document boo xam ne waasuwul benn page mooy Gabon à l'époque léegi nag ba ñu signé accord yi ba ñu koy signé ñun ñu ngi université Gaston Berger boobu ay étudiants lañu à l'époque Sénégal organisé na benn séminaire ñaari fan sali ne dañuy jàngal suñu député yi pour ñu xam accord yi lan moo ci ne balaa ñu koy signé te accord yi dix mille pages la dix mille pages yi nga jël suñu ay député dajale leen ñaari fan sali pour ñu comprendre door a signé xam nga ne du ñu comprendre waaye dinañ signé parce que noonu la ko président bi bëggee. li ma wax noonu moo valable pour tous les pays africains léegi nag ba ñu commencé appliquer accords yooyu di ko doxal ci biir àdduna ñun ñu gis ne ndekete ci accords yëpp dañ ñoo nax ci industrie dañ ñu nax ci agriculture dañ ñu nax ci propriété intellectuelle dañ ñu nax parce que fa ñuy nasee ak a noccee ñu nekkuñu fa woon ba ñu commencé nag doxal accords yi ba di dugg suñu réew loolu lañuy ñuy woowee mondialisation ñun ci la ñu commencé yeewu naan mais pourtant lii baaxul ci ñun ñun fan la ñu nekkoon ba lii bañ koy siñe waxuñu ci ñu commencé nag bëgg a renégocier fekk il était déjà trop man nag bi ma commencé liggéey ci domaine bi ma gis ñëpp di bind jëmale ndeyjoor di wax mondialisation nan lañ koy doxalee États-Unis lu mu ciy am France lu mu ciy am Irlande lu mu ciy am ma ni man africain la sénégalais la naa jéem a xool Afrique moom lan la ci war a mën a am ma ni nag accords yi niñ ko bindee. bariw ci ay experts africain te puisque bariwul ay experts africains li nga xam ne yoon moom la ñu may amul benn af expert africain bu ko xam donc amul benn ministre africain bu ko xam amul benn président africain bu ko xam donc dañ doon nekk ci négociation yi loo xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp sax ñu foqati ko ci ñun ñun ñu nangu ko parce que ñun xamuñu ne ñoo ko moom ma ne nag man bu may bind ci loolu laay bind je suis allé chercher dans tous les accords les niches d'exception et de dérogation qui pouvaient permettre aux pays africains de tirer leur épingle du jeu. moo tax bañ ca tolloo même ñi nga xam ne yenn tubaab yi nga xam ne dañ doon contre la ma doon wax du ñu ma wax jamais élage bon ñoom élage la ñuy wax du ñu ma wax jamais ne ma élage da ngaa juum dañ naan man élage d'accord ñu ak yow parce que lii ñuy def tàmm ñu ko doxalee ak ni ma ne nag tey ngeen gis Afrique bu bees tey ngeen gis Afrique bu xam ay intérêt tey ngeen gis Afrique bu mën négocier boppam tey ngeen gis Afrique bu xam boppam léegi nag yooyu ma boole yëpp nga xam ne yoon may nañu ko te daaw ñu ko utiliser loolu moo tax ma ni Afrique est le droit à la différence dans les négociations commerciales internationales ma jox rek benn exemple pour terminer foofu tey par exemple bu ñu nee frontière yëpp tijji nañu monde bi mondialisation la kenn amul droit protégé wu loolu day valable pour États-Unis dafay valable pour France waaye ñun am nañu droit saa yu ñu neexee ñu tëj suñu frontière ne gisuñu suñu bopp ci accord bii parce que soble bi nga xam ne moom la ñuy bay suñu réew balaa fi beneen soble di dugg ñun dañu bëgg a jaay suñu soble ba mu jeex tàkk loolu dinañ ci ñëwaat ma ne leen nag loolu bu ñu ko defee ci dans tous les domaines de notre secteur économique dinañ dem ba ci mbirum économie ñu ñoo ko moomal suñu bopp. ma terminer rek sur cette question ne yàlla may na ma je suis le deuxième africain en Afrique noire francophone boo xam ne def na thèse de doctorat ci commerce international je suis le deuxième en Afrique francophone te yàlla def na depuis lors tous les jeunes yi nga xam ne en Afrique francophone et même en Afrique anglophone ñi nga xam ne bind nañ ci domaine boobu samay loxo la ñu jaar ak loxo docteur Cheikh Tidiane Dièye mi nga xam ne moom aussi ñëw na léegi man ñi ma jàngal ci domaine bi ay ministre lañu ay DG lañu ñi ngi xëccoo président de la République donc jàpp naa ne lu ma ci wax te bu ma nekkoon président de la République du ma doon président boo xam ne mën nañ ko nax ci négociation commerciale internationale alors deuxième question bi mooy mbirum mbay mi li nga wax dafa am solo moo tax ma jox ko importance ci livre bi parce que tubaab yi bu ñu toogee ñu ne léegi dañuy def mondialisation maanaam dañuy tijji frontières yi ku nekk fu la neex nga dugg jaay ñoom bañ koy def dafa fekk ñu am mbay mu am doole bu ñu bayee ba la ñu ëppal soxlaatuñ ko ñu soxla indi ko suñuy réew pour jaay ñu waaye li ñuy tijji frontières yi yëpp li ñuy wax mbay mi agriculture ñoom dañu ko jël def ko maanaam li ñuy woowe exception maanaam dañuy tijji frontières yi waaye ci mbirum mbay ñun États-Unis saa yu suñuy intérêt baykat nekkee en jeu am nañu droit ñun États-Unis ak France ak Union européenne ñu tëj suñuy frontières ma ne leen nag lii laa leen doon wax ñoom dañuy woote mondialisation tijji frontière saa yu leen arrangé waaye saa yu leen arrangé wul ñu tëj seen ay frontières ñun war nañu jàng ci ñoom loolu ma yokkal leen ci loo xam ne du agriculture xam nga visa mbirum visa am na débattant yi visa ñu bëri xamuñu ne commerce la commerce des services la waaye ba ñu dajee organisation mondiale du commerce Genève di libéraliser maanaam dañuy tijji frontière yëpp marchandises yi mën nañ dugg fu nekk nit ñi war nañ mën a dem fu nekk mais dañ ne mbirum visa ñun Union européenne ñun États-Unis du ñu ko dénk organisation mondiale du commerce parce que bu ñu tijjee suñuy frontières africains yi ak ñeneen ñi dañ fiy ñëw dugg fi jël suñuy koom-koom delloo ko seen dëkk donc loolu li muy wane ci mbirum visa ak mbirum mbay mooy gouvernement boo ko yoree da ngay am fulla da ngay am fayda ci ni ngay négocier da ngay am fulla dangay ngay am fayda ba ni ngay doxale sa réew du lu ñu lay wax donc ñaari question yooyu loolu laa ci mënoon tënk résumé bi daal mooy man bu ma nekkee président la république bu ñuy signé lu leer naññ la ñuy signé bu ñu koy appliqué lu ñu ci man la ñu koy appliqué te réew bu ñu séqal xamal ne benn principe laay doxale ak yow mooy dog tënk yi ne Sénégal d'abord Sénégal la ñuy jiital te lépp lu ñuy def njariñu Sénégal moo ci